bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin walsalaatu walsalaamu ala ashraf almursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi wa taabici sunnatihi ila yowm ddin mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ñu ngi dellu siwaat ak yéen ci minbarul islaam kàttanu suñu borom tabaraka wa seen mbokk Ibrahim Khalil Lo ànd ak docteur Mohamed Ahmed Lo ñoo leen di defal waxtaan wi Valérie moo nekk ci xarala gi mbokk yi ni ngeen ko xamee ci émission yi weesu ñu ngi nekkoon ci bunt boo xam ne mi ngi jëm ci mbirum biddaa jot nañ cee def ñetti waxtaan ci kàttan suñu boroom ba léegi itam ci la ñu fas yéene continuer insha allahu taala xam ngeen ne ci waxtaan yu ñu mujj def Euh, docteur mi ngi doon ñëwoon moom ci xawaayid yi te mooy tënk di ay règle yoo xam ne euh, moom la ñuy xàmmee biddaa soo ko jëlee rek ci bépp xew-xew bu xew wala mépp mbir mu am soo ci appliqué regal boobu rek xool tënk boobu su fekkente ne dëppoo naag moom ci lépp rek dugg ci biir tënk boobu rek nga daal di xam ne kon lii biddaa la yooyu nag ay tomb la yu xaw a limu yoo xam ne tàmbale woon na ko ñëw ba toll ci bu juróom ñetteel bi kon nag tey incha allah pour bañ a jël dara ci waxtu wi rek dañ koy daldi bàyyi mu dugg ak nun ci tomb juróom-ñeenteel bi fa jazaahullahu xayran tafaddal yaa docteur bismillahi irrahmani irrahim in alhamdulillah naxmaduhu wa nastaciinuhu wa nastacfiruh wa nacuudu billahi min shuruuri anfusina wa min sayi'aati acmaalina man yahdihi llahu fala mudilla lah wa man yudlil fala haadiya lah wa ashhadu an laa ilaha illa allahu waxdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan cabduhu wa rasuluh sala allahu alayhi wa ala aalihi wa asxaabihi ajmacin mbokk yi déglu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi dellusiwaat di nuyu déglukat yi minbarul islaam ànd ak Cheikh Ibrahim eh, daal di jàll rek incha allahu taala ci biir tomb yooyu ni mu ko waxe eh, reegalu juróom-ñeenteel bi moo di boroom xam-xam yi dañoo wax ne kullu ma zaharat maslahatuhu zaman at tashrici lakinnahu lam yufaal fa fialuhu fi ma baadu bidaa lépp loo xam ne dañoo jàpp ne lu am maslaha la lu am intérêt bu ca nekk te intérêt boobee jamono ba sharia di wàcc ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa loolu amoon na ko waaye ànd ak loolu taxul woon yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ak i saxaabaam ridwanullahi alayhim taxul ñu jëfandikoo ko kon loola jekki ba jëmmi jamono nga ne am na intérêt nañ ko jëfandikoo kon jëfandikoo googu ci wàllu jaamu yàlla bi daa lay daldi doon suñ ci bëggoon a joxe misaal moo di ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa ak saxaaba yi eh, zikkër bu ñu ko daan def yonent bi alayhi salaatu salaam daf daan jëfandikoo ay baaraamam di jëfandikoo it loxo ndeyjooram comme ni mu ci xadis bu wér bu nekk ci sunan abi daawud mu wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf daan lim sàbbaal ci loxo ndeyjooram da daan wax itam ne baaraam yooyu bu yowmal qiyaamee dañ leen di seedeloo liñ doon sikkar ci ñoom kon baaraam yooyu amoon na jubluwaay mën nañoo wax na ci jamono yooyu su leen neexoon mën nañoo jël ay xeer di ko wàññee wala mënoon nañoo nas ay gif muy doomi buy wala doomi lu demee ne moom waroon nañ koo mënoon a nas su leen neexee di ko wàññe la ñuy wàññi kon jëfandikoo ab wàññukaay mu doon moyen ci jamono yooya amoon na intérêt amoon na njariñ mooy mënees na caa sukkandiku waññi waaye lim ko doon am lépp dañ ko fa bàyyi woon yor leneen lu ñuy wàññee kon suñ demee ba jëmmi jamono ñun suñ xalaatee ne wàññukaay sàngam gi moo xam ak weñ la goo xam ne dañ koy bës ay numéro di génn wala ay perle yu nas ci ci ci ci ak buum yor ko di ko wàññee suñ demee ba jëmmi jamono ñu ne kii am na intérêt nañ ko jëfandikoo kon kooku da lay daal di bëgg a dugal ci biddaa ndaxte dafay fekk ne loolu amoon na intérêt boobu mu am ca jamono yonent ba sallallahu alayhi wa sallam waaye woon mu bàyyi ko fa mm-hmm. jëfandikoo ay baaraamam wax itam xikma bi nekk ci jëfandikoo ay baaraam mu di baaraam yowmal xiyaam dañu leen di seedaloo te néewul yowmal xiyaam dañuy seedaloo ay doj wala leneen mm-hmm. bi ci tegu mooy fukkeel bi dañoo wax ni kullu ibadatin muxaalifatin li qawaacidi alshariati wa maqasidiha fa hiya bidaa lépp loo xam ne dañ koo tër jàppe ko ak jaamu yàlla waaye bu ñu ko seetloo dañuy gis ne moom dafa ñëw di mànkil sharia ci boppam dafay am fu muy féeroog moom di dal ci kawam di ko wàññi kon googa jaamu yàlla bi daa lay doon boroom xam-xam yi dañ cee joxe misaal salaatu ragaib gi nga xam ne diggee woon nañ ci jataay bi weesu ne danañ leen wax nim mel hmm. julli googu dañoo wax ne fukki rakkaa ak ñaar dañ koy julli itam diggante timis ak gee ci guddi gi guddig àjjuma gi jëkk ci weeru rajab ñaari rakkaa yoo julli yu nekk sëlmal rakkaa bu ne nga jàng ca faatixa benn yoon jàng suratul qadr bi inna anzalnaahu fi laylatil qadr ñetti yoon jàng suratul ixlaas fukki yoon ak ñaar loolu benn rakka bu ne hmm. ba muy fukki rakka ak ñaar ñu teg ca ka tër julli googu tolli ca ne ka ko nar a julli itam nag bis boobu day yendoo koor te su yendoo koor ba koor jotit ba dog jotit du dog hmm. day continuer ci noonu ci kooram ba julli timis ba noppi julli julli googu ba noppi door a dog hmm. ñu tudd nag yool yu bare bare bari ne ku julli julli googu danga ko am fekk yool yooyu ñoo ko tëral seen bopp julli googu boroom xam-xam yi dañ koo joxe misaal ci jaamu yàlla goo xam ne nit ñi dañ koo fent te fekk dafa juyoo ak xawaayidu sharia maanaam jubluwaayi sharia al islaami ñu ne fi mu njëkk a juyoo ak moo di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jële nañ ci moom muy tere guddik ajjuma ñu jagleel ko ak naafil lag boppam ñëw na ci saxiixu muslim yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne laa taxusu leylata aljumaati bi qiyaamin min bayni layaali bu leen tànn guddik ajjuma jagleel ko naafil la goo xam ne defu leen ko woon ci naaf ci guddi yi ci des kon kii daal nay juyoog foofu ndigalu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon daal na juyoog benn maqsid muy benn jubluwaay ci jubluwaayu sharia ndax naafila googu mu wax julli googu mu wax ak naafila doo nga lay mën a doon mënta doon farata te nekkul euh, naafila goo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko digle loolu mooy li ci jiitu beneen bi ci des moo di ci guddi googu ñu koy def mooy guddi ajjuma gi daal na juyoog kon ak ndigalu yonent bi sallallahu ñaareelu fi mu juyoo ak sharia moo di ne dañoo diggal kii julli mu ànd ak li ñuy tudde tumaniina ànd ak ne tekk ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci xadis boo xam ne muslim génne na ko mu ne uskunu fi salaa su ngeen di julli na ngeen ne tekk ànd akuk dal kii ñëw ne nag day julli fas yéene lim eh, ràkkaa bu ne mu lim ñetti saari inna anzalnaahu fi laylatul qadr lim suuratul ixlaas fukki yoon ak ñaar boole ko ak faatixa jam jàng lim boobu wàññi gi moo xam loxo la jëfandikoo ci wàññi gi moo xam dafa yor leneen di ko wàññee wàññi googu munta ànd akub dal anamu ñetteel gi moo di ne ragal yàlla giñ digle ci julli ak teewlu gi ba tey itam mënta ànd ak moom dañoo digle kii julli na ànd ko ragal yàlla na ànd ko teewlu di xalaat ci li muy jàng xam nga ni kay xalaat ca la saar di wax loolu mënta ànd ak di xalaat ñaata saar la jàngagun kon kooku daf lay soxlaal ci leneen kon ak jullee ngoog goo xam ne euh, su fekkoon ne du liñ ko fent sax parce que luñ fent rek moom doy nañu ne biddaa la waaye itam màndarga yooyu ñëw juuyoo ak sharia dafay daal di wane ne kooku tegtal la buy dëgëral ci ne moom dañ koo fent buy tegtal itam ne moom biddaa la waaye nag régal bi dafa daal di génn gën a yaatu julli googu lépp lu mel ne moom loo xam ne dañ koo tër te buñ xoolee danañ gis ne am na fu mu juyoo ak sharia maanaam fekk na aw tëriin bu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tër wala tëriin wu tëdd ci alquran mu ñëw juyoo ak moom kon woowa xeetu jaamu yàlla dañ koy daal di atte wane ne bi daala waaye nekkut loo xam ne lu sharia di digle la ndax sharia du digle ba noppi di tebbiwaat di yàqaat lam defoon hmm. fukkeel ba ak benn dañu ne kullu taqarrubin ila allahi bi fi'li shay'in min al'aadaati aw almucaamalaati min wajhin lam tactabirhu shariatu fa huwa bidaa gépp xeetu jaamu goo xam ne nit ki day jëfe loo xam ne jëfi aada la woon du jëfi diine wala jëfi ay jëflente yu dox diggante nit ñi rekk la te diine joxewu ca tëraliinam nga ñëw jël loola yow def ko tëraliinu diine di ca jaamu yàlla nee nañu la kon kooku bi daal lay daal di doon joxe woon nañ misaal ma ko nuru ci gannaaw lu mel ne sol ay sér yoo xam ne dangaa ñëw seet qualité sér ba nga ne li tax ma sol lii li tax ma sol coton bi wala li tax ma sol nilon bi li ma ci jublu mooy jaamu yàlla ndax ku ko sol yaa gën a ragal yàlla keneen wala lu mel noonu mm. kon tànn googu nga tànn xeetu sér woowu jublu ci jaamu yàlla ci tànnin woo xam ne sharia moom tànnewul noonu kooku bi daal lañu koy daal di tudde lu mel ne fekk yi nga xam ne borom bi tabaraka wa taala daf koo daganal mu doon ay lekk yu teey nga jékki ne man du ma lekk nangam te fekk la nga ci jublu mooy bëgg a jaamu yàlla jaamu yàlla moo tax wut ngërëmul yàlla moo tax nga lànk bañ a lekk loola wala fekk yi borom bi tabaraka wa taala daganal lu mel ne denc soxna mu bañ koo def ngir wane ne lim ci jublu mooy wut ngërëmul yàlla wala nelaw mi suñ borom tabaraka wa taala daganal mu wane ne day bàyyi nelaw ci boppam ngir wut ci ngërëmul yàlla loolu ci boppam day dugal nit ki ci biddaa moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi amee ñetti nit ñu ñëw ci këram dal di laaj ay soxnaam waaw moom nan lay jaamoo yàlla bu nekkee ci kër gi mm. soxna yi di koy nettali dal leen koy wax ñu xeeb ko xadis bi mi ngi ci yi daf ne fataqaaluha hmm. ñu daal di jàpp jaamu yàlla ak bi ci biir kër gi daal muy gu néew ñu ne ah kii kat moom day koo xam ne yàlla jéggal na ko ay bàkkaaram kon nun bokkut ak nun kenn ki daal di wax ne man de fas naa yéene guddi gu nekk damay fanaanee julli duutuma nelaw ki ci des ne fas naa yéene bëccëg bu nekk woor laa fas yéene dëkk dëkke hmm. ah, ki ci des daal di ne man itam day fasatuma yéene takk soxna kon yooyu yëpp yu daganaloon la daganal nañ lekk bëccëg daganal nañ nelaw guddi daganal nañ takk soxna waaye yu dagan yooyu ñu bàyyi ko ngir wute ko ngërëmul yàlla yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xabaar bi agsee ci moom daf leen a daal di laaj yéen yéen a wax nangam ak nangam ak nangam ñu ne ko waaw mu daal di géñ ne leen wallahi inni la axshaakum lillahi wa aktharukum taqwa lahu walakinni asuum wa uftir wa aquum wa anaam wa atazawaju nisaa fa man raxiba an sunnati fa laysa minni mu daal di géñ na leen bu dee ragal yàlla maa leen gën a ragal yàlla waaye nag loolu teewut man damay woor di dog saxawuma koor rek ba ca gépp wa aquum wa anaam danaa nelaw guddi itam danaa julli guddi itam waaye danaa nelaw wa atazawaju nisaa danaa takk ay jigéen daal di ne koo xam ne nag yaa ngi bañ sama sunna sooy boo nga xam ne bokkuloo ci man maanaam bokkoo ci ñi ma topp bokkoo ci ñi topp sama sunna ñooñ biddaa rek nga mën a doon waaye mënoo nekk ñooñ sunna kon ci biir loolu ci la ñooñee nga xam ne xér ak bëgg lu baax moo taxoon ñuy def loola ñu daal di jàjju jàjju daal di dellu gannaaw kon biddaa nga doon tàmbali yëkkati foofu boppam waaye foofa la ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di koy suule mu daal di jeex ci jamonoy saxaaba yi lu nulu biddaa feeñaatut ba saxaaba yi ridwanullahi alayhim ajmain kenn du leen tudd di tudd biddaa loolu moo tax ibnu taymiya mi ngi wax foofu mu ne wa man taabada bi ibadatin laysat waajibatan wala mustaxaba wa huwa yactaqiduha waajibatan aw mustaxabatan fa huwa dallun mubtadiun bidatan sayiatan la xasanatan bi ittifaaqi aimati diin képp koo xam ne yaa ngi jaamu ak jaamu yàlla goo xam ne yaa ko fekk tëral ko sa bopp tudde ko lu war wala lañ sopp te fekk sharia moom jàppewu ko noonu nee na kooku indi na biddaa bu ñaaw a ñaaw a comme li nga xam ne mbooleem kilifa kilifay diine yépp dëppoo nañ ci loolu nekke noonu ibnu rajab wax ju mel noonu la wax ak ay ma yu bare bari noonu lañ ko tëre kon benn régal la boo xam ne lépp loo xam ne dafa doon lu dagan bàyyi ko mu doon lu dagan waaye bul defe ne bàyyi ko ci jëmmi boppam ngir bëgg a wax ne dangaa ragal yàlla kooku wuukul ak ragal yàlla waaye jéem a soppi diine yàlla la hmm. fekk lu dagan nga bëgg koo tere la te tere lu dagan mook euh, daganal luñ tere ñooyam règle bi ci topp dañuy wax ne muy fukkeel ba ak ñaar kullu taqarrubin ila bi fi'li ma naha allahu anhu fa huwa bidaa lépp loo xam ne borom bi tabaraka wa daf koo tere ku ko jël di ko def ak jaamu yàlla kooko tàbbi nga ci bidaa xam nga liñ tere moom boo ko defee rek yaa ngi ci luñ tere dal nay doon lu xaraam hmm. waaye nag da doon xaraam nekk maasiya yem ca rek muy ak mooy yàlla waaye day doon ak mooy yàlla ba noppi doonaat biddaa yi teg ci ginnaaw jaamu yàlla la ci jublu hmm. comme ñi nga xam ne dañuy jaamu yàlla ci loo xam ne ñu ngi ko royee ci yéefar yi hmm. loo xam ne ñu ngi ko royee ci réef léeg-léeg nga gis ay xew-xewi diine yoo xam ne boo xoolee cosaanam da ngay gis ne fam sosoo ñooñu dañoo xool yéefar yi ñu dendal ñuy gis ne ñoom ña ngay def nangam ak nangam ñu ne leeral noonu suñ ko deful danañ wéet kon nan ko def wala day mel ne fonkunu suñ koog noonu itam daal di tàmbali di def loola loola daal di koy dugal ci biddaa ngir roy koo xam ne euh, bokku leen lu ngeen nekk kon li nit ki tudde ak jaamu yàlla te fekk dañ koo tere ci dëgg-dëgg sax du jaamu yàlla ndax comme ni ko Shaatibi di waxee dafa ne id law kaanat ibadatan lam yunha anha mm-hmm. su doon ak jaamu yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam du ko tere kon ki koy jëfandikoo mi ngi jëfandikoo lu ñu yoonalut lu ñu santaanewut su fasee dolli ca ne ak jaamu yàlla la kon kooku moo koy tabal ci biddaa kon nag du caagin lépp luñ tere lu ne rek biddaa la liñ tere mooy jëfee ko mooy yàlla la waaye nag mooy yàlla googu su ci boolee fas nag ne léegi moom day jaamu yàlla far boole ci kon kooku mu ngay moy yàlla ba noppi mu ngi jëfandikoo itam biddaa régal bi ci topp muy fukkeel ba ak ñett dañoo wax ne kullu ibadatin waradat fi sharci ala sifatin muqayadatin fa taxyiru hadihi sifa bidaa gépp yàlla goo xam ne ñëw na sharia wutal ko aw aw melokaanam tëriin woowu nit ka ñëw moo xam ci xiram wala ci bëggam lu baax mu daal di koy soppi soppi googu daf koy daal di dugal ci biddaa hmm. loolu nag yu baree bari la léeg-léeg soppi gi ci mbirum jamono lay doon sharia mën na ko wutal jamono ku ko soppi tàbbi ci biddaa masalan ku bëggoon a euh, tabaski weeru tabaski tero rek nga ne ci bis bu njëkk bi man ci laa fas yéene tabaski hmm. kooku tabaski woo ba noppi defee nga biddaa ndax tabaski lañ xam mooy ci fukkeelu fan ba nga koy def comme ku jekki woon jekki gis ne weer sàngam moo gën a dëppoo ak sedd bi maanaam weeru rajab masalan nga ne kon naa woor weer woowu te bañ a woor weeru koor wóoroo weeru koor ba noppi tàbbi nga itam ci biddaa ndax soppi nga jamono ja nga xam ne moom la sharia tëréwoon ne nañ ci woor weeru koor bokk na ci itam soppi goo xam ne ci wàllu place lay doon borom bi tabaraka wa taala dafa digle ne masalan ci wër fenn rek la am fu ñuy jaamu yàlla jaamu yàlla nga tudd lu ñuy wax wër muy wax wal yatawafu bil baytil atiq néegub yàlla boobee rek lañ sañe wër di jaamu yàlla waaye ku dikkoon samp sa garab di ko wër walla nga samp say doj wala nga defal sa miir di ko wër wala nga amub xabru booy wër kon kooku yëmut ci rek ak mooy yàlla sax waaye boole na ci itam mi ngi jëfandikoo biddaa ndax jaamu yàlla googu di wër borom bi tabaraka wa taala daf ko wutal béréb ginnaaw béréb boobu nag jéggi ko dem ci beneen béréb bëgg koo jox façon jaamu yàlla woowu kooku day daal di tàbbi ci biir biddaa bokk na ci yooyu soppi goo xam ne ci wàllu xeet walay doon xeetu jaamu yàlla wi hmm. ku ci doon joxe misaal danañ siiwe ne Euh, tabaski liñ xam mooy ci bahimatul an'am lañ koy defee hmm. bahimatul an'am bu ñu ko waxee mooy euh, xar ak bëy wala gëléem ak nag su dikkoon tabaskee aw fas kooku soppi na jënsu muy xeetu jëmmi jaamu yàlla googu juum na njuumte lu rëy ci tabaski juum tabaski aw fas ànd ak itam tàbbi na ci biir biddaa ndax jëfe na loo xam ne sharia tëriwu ko noonu hmm. ba tey léeg-léeg sopp gi ci na jaamu yàlla ga war a toll mu ñëw yokk ci lu ëpp wala mu wàññi ci lu ëpp ci la koy dikkee léeg-léeg yu mel noonu topp xel rek moo koy indi ndax euh, nit ñi li leen seen xel di wax jamono yu nekk mooy lu baax lu ci gën a bari moo ci gën hmm. waaye fekk ne loolu du fépp loolu du fépp du caa gën ci lépp lu ne rek dangay wax ne lu gën a bari moo gën a baax hmm. biir julli farata soo ci dolli woon jeneen faatixa ju bokkul jàng faatixa ñaari yoon ci kaw ne lu baax du doy wala nga jàng ko ñetti yoon rakka ba nga jàng faatixa ñaari yoon dal na yàqu moom ah kon léegi gën gaa bari taxul mu gën ku jekke woon ba bisub àjjuma nga dolli ak noddu ñetteel gannaaw boo xamee ne ñaari nodd yi sax na depuis jamonoy xulafaa rashidun ba jamono tey ku dikkoon dolli ñetteelu nodd ngir xër kooku daal ngay tàbbi ci biddaa ku jekki woon ba mu neex la nga ne julli yi juróom la ginnaaw genn julli gu ci ne am na bi yool boo doolee juróom-benneelu julli it sa yool day war a yokk nga ne naa ci dolli julli juróom-benneel moo xam da koy julli gannaaw takkusaan wala da nga koy julli gannaaw timis lu mën a xew julli nga amoo ca bi yool ba noppi indi nga bidaa maanaam da nga cay am bàkkaar loolu soppi miqdaar la seet mbir ma nam toll woon kamuñ ba nga ñëw yokk ca wala nga wàññi ca kooku day tàbbal nit ki ci biddaa léeg-léeg soppi gi soppi jaamu yàlla gi day aju ci melokaan wañ ko tëraloon melokaan wañ ko tëraloon suñ ki doon joxe misaal njàpp ak sa sangoog yooyu xeet yooyu xeeti jaamu yàlla yooyu lu ci ne dafa am sharia nu mu ko tëree nangam ngay jëkk raxas teg ca nangam teg ca nangam teg ca nangam ba raxas say tànk njàpp ma jeex kon ku jikkoon di jàpp tàmbalee ci say tànk di raxas juutal ko ba agsi du rekk ne sa njàpp baaxul sa njàpp moom baaxul waaye ba tey itam def nga biddaa maanaam sos nga ci diine loo xam ne lu ci bokkut la kon bàkkaar yi du doon benn bàkkaar waaye ñaari bàkkaar lay doon hmm. bàkkaarub biddaa ak bàkkaarub juuyoo soppi gi nga soppi santaane yi borom bi tabaraka wa taala kooku mooy mooy boobu régal hmm. fukkeelu régal yi ak ñeent moo di kullu ibadatin mutlaqa sabatat bi dalilin aam fa inna taqyidaha bi gayri dalilin muctabar bidaa gépp jaamu yàlla goo xam ne dafa ñëw ñu ubbi ko yaatal ko xataluñ ko mu sax ci firnde ju wér kooku ku ñëw bëgg koo xatal yaa ngay sos biddaa ku la ci bëggoon jox misaal dalay wax ne nit ki léeg-léeg mu def loo xam ne li ñuy wax itqu raqaba daf koy war muy goreel jaam kuñ ne goreel jaam war na la maanaam jaam bu gëm yàlla la borom bi sart ku la ci bëggoon indil beneen charte nag bëgg laa wan ne la faw diw sàngam ngay goreel soo ko deful ah, sa goreel du aw yoon kon kooku ma ngay ma ngay xatal lu yàlla yaatal yàlla dafa ne rek raqabatin mu'mina jaam boo xam ne bu gëm yàlla la saa boo goreelee jaam bu gën yàlla sa jaan wàcc na kon ku la ne nag du jaam bu gëm yàlla rek waaye faw diw ngay goreel sa sa goreel door a baax kon kooka ma ngay xatal loo xam ne borom bi tabaraka wa taala daf ko yaatal te taqyidul mutlaq kooku dalil rek moo ko sañ a def moo di sharia moo ko sañ def dikkar yi nga xam ne Cheikh Ibrahim doon na ci waxtaan ca gannaaw euh, dafa ñëw ñu itlaaq ko wax ne rek na bari waaye néew ñu la na doon téeméer wala na doon junni wala na doon fukk nga ñëw wutal ko ab lim yow boo xam ne moom ngay taqoo bés bu set nga di ko def kon kooku daf lay daal di dugal ci dugal ci biddaa kon lépp loo xam ne sharia daf ko yaatal bàyyil noonu mu yaatu bu def jotee nga def la nga ca man bu dee wàllu dikkër ba fa sa waxtu yam nga yem foofa waaye boo xamul woon ñaata la sax borom bi tabaraka wa taala moom dana xam ñaata la comme la abdullah ibnu mas'ud radiallahu taala anhu waxoon ñam fekkoon ñu naan limal téeméer kii naan ko waxal laa ilaha illallah téeméer neel astaghfirullah téeméer mu ne leen su ngeen di lim lim leen seeni ñaawteef te xam leen yàlla moom xam na nu mu toll jërul ngeen di sonn ci jiim koo wañ ak jiim a xam na mu doon lu dul nag charia dafa ñëw ne la nangam wax ko fukki yoon wala nangam wax ko téeméer loola ca ngay yem sañu caa yokk sañu caa wàññi itam nag waaye bu la nee nag waxal rek lu gën a bari comme li yonente bi salallahu alayhi wa sallam wax ci benn riwaaya ci laa ilaha illa wax waxdahu la sharika lahu lahul mulku ko lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir dafa wax ne ñaan Euh, ki ko wax ci bis am na ci yool yool bu toll ne ku goreel ñeenti bakkan yoo xam ne ci doomi Ismaayil lañ bokk maanaam ci ñi gën a tedd ci doomi aadama yi daal dina it kenn indiwul yi wu gën wi indi lu dul ku ko ëppale lu dul ku ko ëppale kon foofu daal nañu xam ne bari gi euh, bari gi lu am solo la wutaluñ ko it nag fu mu yem kon foofu bul ko wutal fu mu yem waaye waxal rek sa kem kàttan ni nga ko mëne bu ëllëgee loo ci mën a loo mën a wax nga wax ko na la ko sa waxtu moo tax ibnu taymiya bi muy misaal loolu loo xam ne borom bi tabaraka wa taala daf ko santaane yaatal ko nga bañ koo xatal daf ciy joxe misaal mu ne day mel ne kuñ na demal màkk aji néewuñu la jaaril Paris wala jaaril Londres wala jaaril fee wala jaaril Maroc wala jaaral fenn yow daal li am solo mooy mooy demal màkka fexeel ba boo àggee fa nga wet ga nga jaare fa ñuy armale armaleel foofu boo àggee màkk nga aj màkk waaye fa ngay jaare kenn waxu la ne la faw nag pour sax aj wér da ngay jaar béréb sàngam jaar béréb sàngam jaar béréb sàngam door a àgg màkka kon kooku ma nga lay indil bi daa ci sa biir ci biir sa jaamu yàlla kon kooku bu ko déglu ba tey euh, qaayda boobu moo di régal boobu bu aajee bàyyi xel la ndax lu baree bari ci nit ñi seeni njuumte foofu lay amee foofu lay amee ndax duñ euh, wax yenn jamono ni nit ñi nga xam ne dañuy tàbbi ci biddaa Euh, dañoo yor yéene yéene yàq wala dañoo bëgg sonn ba noppi duñ jariñu déedéet nit ñu bëgg lu baax lañ waaye toujours seytaane kenn ku ne dafa am fu lay rëbb ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir lislaam di góor góor lu nekk ci jaamu yàlla yi di wattandiku ñooñu bu leen seytaane demee ci baar ba di leen xaar du leen fa gis ah bu demee ci sabar ya di leen fa xaar du leen gis bu demee ci sànkukaay waxtu ya lu mel ne bëriwukaay ya wala futbalukaay ya seytaane du leen gis foofu waaye ci biir jaamu yàlla gii def nekk ci guddeeg bëccëg di tëju di kurkuri foofa la leen seytaane di fekk fexe ba dollil leen ci loo xam ne yàlla santaane wu ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam santaane wu ko su ko defee ñu sonn ci seen coono yaram ñàkk caa nelaw léegi léeg ñu ñàkk ci sax seen i alal ba noppi duñ ci jariñu kon kooku foofu la seytaane di euh, foofu lañu la ñu war a bëreeg moom ci wet googu ñoom ñi nga xam ne dem nañ ba toll foofu mm-hmm. euh, te li ëpp ci xeet wi alhamdulilah ñu bëgg aw yiw lañ ñu góorgóorlu ci fànn googu lañ mm-hmm. bërëb seytaane bi taxul mu jeex ndax kenn ku nekk fa nga nekk fa mu jàpp ne fa la la mën a note foofa la lay fekk di fa bëri yow moo tax dañuy wax ne même kooru ngàtt nga kooru ngàtt nga koo xam ne charia dafa ñëw wutalu ko benn jamono dañ ne la rek waral sa kem kàttan su mu kàllaf ñëwoon jël benn bis ci at mi boo xam ne daf ko tànn ne bis bi moo gën démb moo gën suba itam kon boobu bis dama koy woor te fekk moo ko tànnal boppam di ko woor ànd ak ne kooru ngàtt nga ko dañ ko ubbi waaye xatal gi mu ko xatalal boppam kooku dal na koy dugal ci dugal ci biddaa ndax kooku euh, xalaatu boppam la jël jëfandikoo ko te ak jaamu yàlla kenn du ko tëre kenn du ko tëre xalaat moo tax euh, foofu ibnu taymiya mi ngi joxe misaal mu mu rafet mm-hmm. mu ne ndax dafay mel ne ki sos ne danaa woor alxemes ji njëkk ci weeru rajab nee na kooka faw am na lu mu fas ci xolam ba tax mu tànn alxames ci njëkk ci weeru rajab su fekkoon ne moo bis yépp a yem du tànn bis boobu kon wa ala allahi falyatawakkalil mu'minuun wa laqad nasarakum allahu bi badrin wa antum adillatun fattaqu allaha la'allakum tashkuruun إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين ويأ يأتوكم من فولهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين kon noonu la ko waxe maanaam ki nga xam ne dafa tànn bis bi ci weer wi ne kooru ngàtt ngaam gi ci bis bi la koy def te fekk moo ko tànnal boppam sukkandiwgoo ci xadiisu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon am na lum fas ci xolam ba tax yemalewul bis bi ak bis yi ci des su dul woon nag pas-pas boobu ci xolam kon nee na du jóg mukk di tànn bis boobu ngir loolu ndax nee na fa inna tarjixa min geyri murajjaxin mumtani amul lenn loo xam ne mën nga koo tànn te du dara moo tax nga tànn ko mm-hmm. su fekkee ne li tax nga tànn ko nag ah da jàpp ne bis bi moo gën bis bële wala jaamu yàlla gi ci lañ koy gën a nangu wala nga jagleel ko place boo xam ne da ngaa defe ne ci biir béréb lañ koy gën a nangu ba tax nga koy defee foofu te tegoo ko ci sharia su boobaa kooku moom moo lay dugal ci moo lay dugal ci biddaa mm-hmm. eh, loolu nag day wuuteeg eh, misaal bi ma joxoon mbokk mi ci jataay bi weesu mm-hmm. mu di ki nga xam ne dafa tànn bis te fekk amut lu aju ci xolam lu muy wanee ne bis bi moo gën démb wala moo gën suba ba tax mu tànn ko waaye dafa gis ne bis bi moo gën a dëppoo nit ñi comme mu tànn ci bisu waxtaanam wala yu mel noonu ngir jàpp ne bisu dimanche la euh, te bis bi nit ñi dañ ko dul liggéey euh, mu woo leen ci bis boobu ñu daje ci kon kooku bu boobaa du doon bi daa ndax jàppul ne bis bi dafa gën démb wala dafa dafa gën suba mm-hmm. ah mboolem règle yi nga xam ne moom lañu ñu weesu muy li tàmbalee ci bu njëkk bi ba ci bii nu mujj a tudd muy fukkeel bi ak ñeent yooyu yépp ñi ngi dellu ci benn ballukaay bu jëkk ba bi njëkkoon a tudd mu di at taqarrubu ila allahi taala bi ma lam yashra jaamu yàlla ci loo xam ne yàlla santaanewu ko la ca tegu nag mooy yeneen régal yoo xam ne ñi ngi dugg ci ron ah, ballukaayu ñaareel ba mu di alxuruju anil wadaci diini hmm. ah, muy génn nag ni nga xam ne noonu la diine tërale Euh, kon bu fekkee ne teewluwu leen lenn lu ngeen di mm-hmm. euh, ruqanti ci li weesu mm-hmm. wala benn tomb boo xam ne da ngeen a bëgg ko ci jokk dara waaw ñambaas mm. ñu daal di dugg rek ci mm. euh, régal fukkeel bi ak juróom waaw waaw defe naa noonu ñu leeralee régal yi leer na lool xam naa am na benn yóbbante boo xam ne mel na mbokk moo ko yóbbante woon ne bëgg nañu leeral ko muy xadis boobu di wax naan man sànn sunnatan xasana euh, kooku daal mbokk bi dafa wax ne ñu baree baree bari ci ñi layal ne biddaa bu rafet mm-hmm. am na ak biddaa bu ñaaw euh, bokk na ci seen lay yi ñuy gën a sukkandikoo mm-hmm. euh, xadis boobu kon nag li ñu bëgg nga def ci ak leeral tuuti insha allah bala ngay jàll ci beneen tomb bi ci des jazakumullahu xeyran xam nga xadis boobu ñu koy faral di jëfandikoo li ñuy jiima saxal mm. mooy dañoo bëgg a wax ne biddaa ci sharia dafa am biddaa bu rafet mm-hmm. euh, ñu jàpp ne loolu day tegtale ne biddaa bu rafet am na mm-hmm. waaye ci niñ ko jiitale woon mm-hmm. biddaa bu rafet amul ci bu dee ci sharia bu dee ci wàllu luxa nag loolu noppi woon nañ ci wàllu waxiinu araab moom biddaa bu rafet am na waaye bu dee ci biir sharia ak ku tëraliinam biddaa bu rafet amul li cay suñuy tegtal moo di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na kullu bidaatin dalaala bépp bidaa ba mu mën a doon nee na ak réer te ak mun te rafet loolu moo tax boroom xam-xam yi firi xadis bi yépp dañuy wax ne kooku aam la boo xam ne lam yu xassas maanaam tax taxsiis euh, mooy fekk li nga xam ne euh, dafa général li généraliser mm. am lu ñëw particulariser ko mhm. mu ne kooku amul lenn loo xam ne dafa ñëw dindi ci mhm. dindi ci lenn mhm. noonu mu mel rek noonu lañ ko bàyyi bépp biddaa ba mën a doon ak réer la ñaareel ba moo di ki naan biddaa bu rafet am na rafet rafet ci lan ndax rafet ci diine nga bëgg a wax wala rafet ci xel su fekkee ne diine moo ko rafetlu mm. kon dey wane ne alxuraan moo ñëw ne lii lu baax la mm. wala sunna moo ñëw ne lii lu baax la mm. loolu saa bu amee kon kooko tuddatul bidaa ndax la lislaam ne xas ne baax na sharia ne baax na kooko buñ ko tuddee tuddeetee bidaa ci wàllu loxo lay doon waaye nekkatul ci wàllu sharia bu fekkee xelay wax ne nag lii rafet na ma rafetlu ko ba tax ma nangu ko dugal ci diine ji kon keneen mën naa ñëw bañ koo rafetlu te nag sam xel du gën a yey xelum ka ca des loolu moo tax yàlla bi muy sant joxe diine ji bàyyiwu ko ak xeli doomu aadama yi ndax xel yi daanaka ni doomu aadama yi toll yee ñuy rafetlu noonu lay toll kii day jàpp ne lii lu rafet la kee jàpp ne lu ñaaw la kii ni lii lu baax la kee ne lu bon la kii ne lii lu ma bëgg la kii ne lii lu ma bañ la hmm. yow ci sa jëmmi bopp sax léeg-léeg ngay rafetlu dara ba mu yàgg da lay yéem nan nga jàppe woon ne sax lii lu rafet la hmm. parce que da naan daal xanaa jamono yooyu daal sax hmm. sama yaram neexul woon wala seetluwuma woon hmm. mbir mi ndeke yu ñaaw yi nekk ci biir ginnaaw kenn nit ki nag mooy dem ba mu yàgg am xelam di soppiku loolu moo tax xel yi yàlla bàyyeewu ko ak diine ji dafa yeble loo xam ne ci moom la jóge muy alxuraan ak sunna ngir xel yi mën a jubbantiku xadis boobu bu ñu xoolee li waral yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ko danañ xam ne nekkul aw lay ci kuy wax ne biddaa bu rafet am na mhm. euh, loolu moo tax njàngum xadiis léeg-léeg dañ lay wax ne comme ni ngay sonnee léeg-léeg ci laaya ji ngir euh, jii ma xam sababu nuzuul mhm. ngir bëgg xam aaya ji lu muy wax mhm. day jaadu it léeg-léeg nga sonne ci xadiis bi xam sababu wuruudihi sababu wuruudil xadis ngir nga mën a xam xadis bi li muy wax lu mu doon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa nekk ci jàkkaam am mbooloo mu dugg moo xam ne ay jullit lañ la ëpp ci ñoom jóge ci yërug modar hmm. mu xool leen gis ñàkk gu méttee metti ci seen seenum col ak seeni melokaan hmm. loolu metti ko lool mu yéeg ca minbar ba daal di xutba xutba bu gàtt daldi di soññee ci joxe fi sabilillah bilaal ibnu rabaax radiallahu taala anhu daal di lal malaanam nit ña di ca def hmm. di sarxe lu waaye am def ca ku am sa jaaro dindi teg ca ku doroom dara ci sa poos dindi def ca ñi di ca def ba mu yàgg mm. am ku jóg ku bokk ci lansaar yi daal di dugg këram mm. daal di jël benn gise muy benn porte-monnaie duy ko ba mu fees dell ak ak or mm. di koy yor mu ne bi mu ko yoree di ñëw sax ay loxoom dafa diis xawu koo àttan bi mu dikkee daldi ne ko bëcc daal di koy sarxe eh, ñi xool gis nam tolloog na wurus wa mel yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di bég naka kooka def loola it jullit yi dañoo daal di gis loola seen xel daal di nekk ci ne ah kon kat ndekete nit ki ngërëm li muy indi war a bari du yem ci li mu indaale woon ci jàkka ji rek waaye na daw dem këram moom itam indi naka mu ko def lansaar yi daal di tàmbali di dugg seeni kër di di di roñ di indi roye ko kooku yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di bég ba xar kanam ba euh, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mel ni wurus mm. mu daal di ne man sanna fi l islaami sunnatan xasana fa lahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawm alqiyaama mm. ku def ku yoonal ci mm. loo xam ne lu rafet la mm. kooku am nga yoolu yoolu ba nga jëf yow ak yoolu képp ku ko jëfe ba ker yowmal xiyaam ne taxaw ñi xool ki yoonal ndax dafa sos ci diini ji dara foofu mm-hmm. defe naa ne sosut ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, avant muy soññee foofu ci sarax si sax fekkoon na alxuraan ci boppam soññee bu yàgg yàgg ci sarax kon yonent bi ñëw na soññee ci sarax bi mu ci soññee it jëm a jóg am lu mu def nit ña dem roy ko ci loolu te loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi koy gis di ko iqraar te bu ñu fàtte ne iqraaram ak saxalam sunna la mhm. mu daal di koy rafetlu moom yonent bi sallallahu kon sharia am moo ko rafetlu waaye du caagi ne nit ñi ci seen jëmi bopp ñoo ko rafetlu mhm. loolu moo tax bi muy wax fil islaam la wax san mhm. na fil islaam loo xam ne dafa sax ci lislaam ba àggal waaye nag xotti nga yoon woo xam ne ci biir lislaam jooju xëy na réeroon na nit ñi eh, ñu roy la ca biir loola kon kooku daal nay doon loo xam ne dafay daal di leer nañ mm. nekke noonu itam ku xotti ci lislaam yoon woo xam ne bu ñaaw la mm. ah, kooku bàkkaar ba daf koy war mm. bàkkaar ñu koy jëfee itam mu di ca am wàllam ah, ba kër yomal xëy am di taxaw ah, am na itam iskaal bu ñu indi foofu ndax ñenn ñi dañuy wax ne su fekkee eh, man sànn islaam islam boobu am na sax eh, ñu koy saraaye ku dundal waaw ku dundal ci lislaam xaw ma nag saraab boobu moom dara doon bu ñu nangoom déet waaw da nga gis ci wane ne lu amoon la waaw aha da nga mm. gis lenn ci téere yi ñoo xam ne man axyaa lañ koy firee mm. waaye man axyaa gi du baatu sànn ci boppam mooy firi axyaa mm-hmm. euh, du mooy firi dundal mm. waaye dañoo xool maanaam xadiis bi mm-hmm. mu di mbir moo xam ne sax na ci diine ba àggal hmm. waaye xëy na nit ñi seetluwuñ ko hmm. nga jëfe ko hmm. ñi daal di koy jëfe day nuroog Omar ibn al-Khattab lu aju ci wàllu tarawih salaatu tarawih bi nga xamee ne nit ñi dañ ko dañ ko xawoon a fàtte mu dundalaat ko nit ñi jóg di ko de di ko ca topp kon kooku sunnaal na wala yoonal na wala dundal na lu ci nekk mën nga ko wax waaye jamono yoo koy firee dundal na it dundal na jooju da ngaa xool maanaam yi maanaam mu laabasaatul loolu nga xool Euh, jëmmi baat bi ci boppam baat bi ci mm-hmm. boppam sànn bokkul ak axyaa mm-hmm. loolu moo tax ki nga xam yoonal lañ ko mm-hmm. mooy wi fi gën a jub moo tax itam bu fekkee ne ci jëf ju ñaaw jala it ba tey it yoonal rek lañ koy fiire ndax comme ni nga ko xamee sunna mooy ab tariq mooy aw yoon mën naa doon yoon wu jëm ci wiiw mën naa doon yoon wu jëm ci aw ay loolu moo tax moom ah, kon daal mbir bi buñ ko seetloo dëgg-dëgg day dellu ci euh, jullit bi su fekkee euh, ngëmam dëgër na ak déggam lislaam itam wér maanaam mu xam ne bépp sunna xasana mhm. moom saxoon na ci lislaam ba noppi ku ko def itam day fekk ne loo dundal la loo feeñal la waaye mi ngi fi woon mhm. bu dee ci geneen wet gay jullit bi dafa war a gëm ne sunna sayi amum amul ci lislaam mhm. kon ku ko indi moom yaa ko fent kon ñaari baat yi suñu nuroo seen maanaa mën naa bañ a bokk lu muy tekki ndax sunna sayi amum ku ko indi li muy tekki moom yaa ko xotti moom yaa ko fent indi ko fi mais amul woon ci lislaam ba di ko dundal mais sunna ak xasana nag mm-hmm. moom li ñuy xam mooy lépp bépp sunna boo xam ne xasana la mi ngi woon ci biir lislaam mm-hmm. ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu fi daataan jógee borom bi tabaraka wa taala dafa ko wax ne al yawma akmaltu lakum diinakum mm-hmm. mu del waxi ne amul lenn lu leen di jegeel borom bi tabaraka wa taala lu dul tegtal naa leen ko amul lenn lu leen di solil safara itam lu dul ne tegtal naa leen ko kon bépp yiw boo xam ne mën a jariñ jullit bi la kooku moom mi ngi ci biir lislaam kon bu ko ki defee te lislaam nangu ko rek tekkiwul ne lu mu fent la waaye lu fi nekkoon la mu feeñal ko mu dundalaat ko bu dee lu ñaaw la it moom dañuy xam ne nekkul woon ci biir islaam ndax ñenn ñi dañu wax ne su ngeen firee ne man sanna na islam sunna xasana ñu firee ko ku ah, ñu ne bu ñu demee ba ca beneen wet itam ne man sanna fil islam sunna sayyi'a ah su ngeen ko bëggee firee ku dundal kon day mel lu ñaaw dafee nekkoon moom mu dekkalaat ko waaye loolu nag moom bu boobaa day dellu rek ci ngëm-ngëmu jullit bi ci biir islaam xam ne lépp lu rafet mi ngi fi waaye lu ñaaw moom nekku fi kon defe naa ne euh, loolu leer na. incha allah waaw xam nga euh, hmm. euh, Cheikh jamono yu nekk dafa nekk ci bëre. Hmm. maanaam ndax leer na naññi ne. Hmm. jullit yi suñu delsee jàpp ci sunna. bu wér am na xeeti njariñ yu muy indi yoo xam ne. ngañaayul seytaan ngañee ci kaw seytaane lay doon. loolu moo tax raaf googu. lenn ci ay sunna di raaf. bërëb seytaane la la chàkk bi dalik mm. ndax bu nit ñi dëdd gu ñuy dëddu xam-xam mm. ak dëdd gu ñuy dëddu nangu caa sonn mm. loolu ci la sunna di raafe boo xoolee li nga xam ne ay sunna yu nekk mahjuura la ci sun jamono yu tey ay sunna yoo xam ne yu am la yu wér nekk ci téere yi di waxi sunu borom tabaraka wa lenn li di waxi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba noppi nit ñi buñ ko gisee lu yees lañ koy teg loolu da nga yëg ne bërëb bërëb seytaane la léegi la nga gis yoo xam ne sax dafa dem ba bokk ci usul asasiyaatu diine nga xam ne ci fondation yi diine ci la bokk te du tee bu ko nit jëfee ñu ne kii lu bees la indi loolu fekk na raafal googu seytaane di raafal xam nga ne jamono yu ñu demee ba su jigéen muuroo ñu ne kii dafa indi lu bees dafa yow ji jamono léegi diine ji ña ngi koy raafal ci biti nit ñi jamono yoo demee ba gis koo xam ne mi ngi julli julli yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala mi ngi roy yonent bi ci xeetu julleem mm. ñi ne kii xeetu julli wu bees la indi mm. loolu booba seytaane moo bëree woon ba raafal sunna wallaahi waaye nag teewut raafal googu mm-hmm. jamono yu nekk borom bi mm-hmm. tabaraka wa taala daf koy soob mm-hmm. euh, am ay doomi aadama yu jiim a jóg euh, seen kem kattan di jiim a dekkalaat yooyu nga xam ne ñi ngi koy raafal di jiim a bëreeg seytaane ngir jiim ko delloosiwaat ci xeet wi ndax ñu xam ne mbir mi jamono yoo xam ne ànd gi jàpp ci sunna am na bennoo gi ñëpp bëgg dana daal di mën a am doole ji ñëpp bëgg dana daal di mën am kàddu jullit yi dana daal di mën a nekk genn kàddu déglu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di déglu alquran mm. su ko defee seenu bennoo dana daal di mën a am ci lépp mm. seen doole dana daal di mën a am mm. waaye lu dul loolu rek ay pàcc-pàcc la nit ñi di doon kenn ku nekk wut sa modèle nekk fële euh, di roy lii di déglu kële su ko defee bennoo gi dañ koy wax rek ci làmmiñ yi waaye lu yàgg-yàgg itam day daal doon du mën a am waaw jafe lay doon la Eh, fukkeel bi ak juróom kon. Mhm. dañuy wax ne kullu ma kaana kon boobu mooy dugg ci kon. Mm. Eh, mooy bi jëkk ci. Mm. yi dugg ci ron ballukaay bu ñaareel bi. Mm. mu di alxuruj anil wada diini. diine dafa am lu mu tërale. lépp loo xam ne day tax nga génn tëraliin woowu. Oh, day daal di dugal nit ki ci bidaa. kon bi ci jiitu mooy di kullu ma kaana min al itiqaadaati wal aaraai wal nazariyaat. muaaridan li nusuusi alkitaabi wa sunna aw muxaalifan li ijmaaci salaf fa huwa bidaa lépp loo xam ne moo xam pas-pas la wala xalaatu doomu aadama la wala jis jisam la boo xam ne indi na ko biñ ko xoolee gis nañ ne dafa juuyoo ak alxuraan wala mu juuyoo ak sunna walla mu juuyoo loo xam ne saxaaba yonent bi ridwanullahi alayhim ajmain dëppoo nañ ci hmm. kon loola bidaa lay doon ah boobu regal nag yëf yu bari da ci dugg bokk na ci itixaadu rayi aslan muxkaman maqtuan bihi wa ardu nusuus shariati ala hada al asl léeg-léeg da gis kuréel boo xam ne seen biddaa fa mu jógee mooy xalaat boo xam ne nit a ko xalaat tër ko mu nekk cosaan cosaan loola nag lu ñëwati di alxuraan wala di sunna dañ lay jël gaaral la ca ba xam dëppoo nga ak cosaan looloom déet soo dëppoog moom ñu ne la ahlan wa sahlan yow aayab alxuraan bi yow nangu nañ la wala yow xadis sàngam nangu nañ la mm-hmm. soo juuyoo ak loolee ñu tëroon nag ñoom dañuy daal di jéem a sàkkal jooje laaya wala booba xadis pexe mu jéem ko wutal meneen maanaa mu bokkul ak la muy tegtale kon kooku masala bu bu màgg a màgg la mu di masalam jiital xel door caa teg li nga xam ne mooy texte mm-hmm. li ñuy wax taqdimul aqli ala naql mm-hmm. masala bu mag la ba tax na euh, cheikhul islam ibnu taymiya rahimanallahu wa iyaahu mm. bind na ab téere bu rëy rëy bu mu tuddee dar u taarud al aqli wa naql mm. ci bunt boobu la ko bind pour wane ne xel mu mucc xelum doomu aadama ji bu muccee bu ko dara gaarul euh, du dë du juyoo mukk ak tëraliinu sunu borom tabaraka wa taala kon jamono yoo xam ne nit kaa ngi tër aw tëraliin ba noppi tëralin ma di juyoo ak sharia maanaam muy juyoo ak alxuraan wala muy juyoo ak sunna bay aajowoo ñi di ko taawil hmm. kon bu boobaa xel ma ci jëmmi boppam moo moo muccut dafa am lu ko dal eh, loolu nag loolu ma tudd léegi lu ëpp ci biddaa yi nga xam ne dañoo aju ci bunt bi ñuy wax buntu asma wa hmm. ci wàllu pas lu ëpp ci bidaa yi nga xam ne eh, dafa tasaaroo ci bunt boobu ci la jaare bokk na ci itam yi nuy won loolu moo di léeg-léeg ci biir li ñuy tudde usulul fiq dafa am ay usul ak i tëraliin yoo xam ne eh, rafetlu ci xel rek moo waral tëraleese ko noonu léeg-léeg nga gis masala boo xam ne masala usuliya lañ koy tuddee waaye boo ko seetloo da ngay gis ne ànd ak ni jàpp nañ ne lu dëgër la loo xam ne ku ku juyoo ak moom sax day mel ni juyoo nga ak alxuraan wala juyoo nga ak sunna te fekk boo ko seetloo da ngay gis ne jëmmi tëralin woowa ci boppam rek ah, dafay juyoo ak alxuraan ak sunna ci boppam léeg-léeg yooyu day dem sax ba laal xujjiyatul kitaab wa sunna am na ci ñoo xam ne ci wàllu usul ci seen gëstu dem nañ ba ne alxuraan ci boppam mooy xujja waaye sunna nekkul xujja maanaam ci alxuraan lañ mën a sukkandiku mm. waaye mën a suta sukkandiku ci sunna ngir layal diine ñi wax loolu daal di tëral seen bopp ab xadis boo xam ne ñoo ko teg wax nañ ne bidaa yi bokk na ci mm, li gën a mën a tasaare bidaa mooy teg ay xadiis mm. am na xadis boo xam ne dañ ne mm. eh, dañ ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ne ida jaakum alxadisu fa ariduhu ala alquran fa in waafaqahu faqbaluuhu wa in xaalafahu fa rudduuhu sub xadis dikkee gaaral leen ko ci alquran su fekkee dëppoon ak alxuraan nangu leen booba xadis su juyoo ak alxuraan bu leen nangu booba xadis hmm. kooku bu dee xadis bu ñuy xool ci wàllu li ñuy tuddee isnaad la hmm. xadis mawdu la mooy xadis boo xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa dañ ko koo askane waaye waxu ko hmm. ñaareel ba bu dee dañ koo xool danañ gis ne moom juyoo naag waxi suñ borom tabaraka wa taala moom daf ne wa ma aataakum rasulu fa xuduuhu ah lu leen yonent bi indil jël leen ko hmm. waaye neewul lu leen yonent bi indil gaaral leen ko ci alxuraan hmm. Hmm. loolu moo tax boroom xam-xam yi dañuy wax ne xadiis bi ci boppam euh, comme ni ko boroom xam-xam yi mantiq yi di waxee xujjatun munqalibatun ala nafsiha aw lay wu sëpp jalañ la lay wu sëpp jalañ mooy lan mooy woo xam ne moom ci jëmmi boppam day firi boppam li muy àttee moom la jëkk a condamné moom la njëkk a condamné léegi bu fekkoon ne moom xadiis bi dañ koo jël jëfandikoo li mu wax Mm. muy bu xadis ñëwee gaaral leen ko ci alxuraan mm. su dëppoog moom jël leen su jóg ak alxuraan wàcc leen mm. suñ jëloon loolu muy wax moom suñ jàppoon ne xadis la ba jëfandikoo loolu moom dañ koy wàcc mm-hmm. ndax suñ ko gaaraloon ci alxuraan duñ fekk mu dëppoog alxuraan mm-hmm. dañuy fekk mu juyoog alxuraan lu tax moom day wax ne su xadis ñëwee gaaral leen ko ci alxuraan alxuraan moom lan lay wax daf ne wa ma ataakum rasul fa xuduuhu lu leen yonente bi andil jël leen ko néewul kon juyoo naag loolu euh, nu daal di koy jàppe noonu daal di koy sànni léeg-léeg ci biir xam-xamu xadis dafa lu am li ñuy tudde ahadisul ahad mooy xadiis bu nekkul li ñu tudde mutawaatir xadis bu nekkul mutawaatir nag mbokk yi déglu bu ñu fàtte ne ab xadis bu wér mën na ko doon li ëpp sax ci xadis yi nekk ci buxaari ak muslim ay xadis lañ yoo xam ne nekkuñu mutawaatir waaye ànd ak loolu lépp teewul lenn ci boroom xam-xam yi nga xam dañuy tudd usul dañ ne xadis bu nekk aaxaat muy bu nekkul mutawaatir hmm. kenn du ko def aw lay ci lu aju ci wàllu pas-pas mutawaatir mooy bu mbooloo mooy boo xam ne mbooloo mu baree baree bari ñoo àndandoo solo ko hmm. benn yoon hmm. maanaam mbooloo mu baree bari moo xam ne daal bu dee ci jamonoy saxaaba yi mbooloo mu ko solo mu ñëw ci jamonoy taabe yi mbooloo gën a bari mu ñëwaat mbooloo mu gën a bari ba ba muy agsi ci boroom téere ba taalif ba tëral ci xad ba indi xadis ba kon euh, ñoom dañ ne chartu xadis bi ñuy jëfandikoo mooy na nekk mu tawaatir kon ak mm-hmm. mbooloo mu bari solo mm-hmm. te bu ñu fàtte ne bu ñu fàtte ne xadis mu tawaatir lu néew a néew la mm-hmm. su fekkoon ne dañoo jëfandikoo loolu wàllu pas-pas lu néew a néew dara ci pas-pas daanaka du xaw a leer li leeral pas-pasu ahlu sunna wal jamaa lépp ci ay ahadis yoo xam ne àgguñu ci mutawaatir ci la jóge waaye ay xadis yu wér la yoo xam ne képp ku xam dara ci xam-xamu xadis boo ko xoolee da nga xam na daal leer cëng ne lii waxu yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam waaye teewut dama bëgg a joxe misaal rek ci wane ne léeg-léeg sukkandiku ci li ñu tuddi xam-xamu usul am na yenn xeeti gëstu yuñ tàbbal ci biir yoo xam ne yenn yi ci mantiq la jóge li ñu tudde logique nga xam ne xam-xamu grec la wala loo xam ne philosophie la tàbbi na ci biir ba tax am ñu ko jëfandikoo ba loolu gal gaar leen ba am ak sikki sàkk guñ amal ci lenn ci xadiisu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam hmm. loolu lu hmm. mat a lu mat a bàyyi xel la hmm. li am solo daal moo di eh, al imaamu shaafi li mu wax <coughs> shaatibi ah, daf ne wa rayu ida aarada sunna fa huwa bidaatun wa dalaala bépp xalaat boo xam ne doomu aadamaa ko tëral boppam jamono yu juuyoo ak sunna xamal ne kooku bidaa la ak réer la imaamu shaafi foofu am na lu mu wax mu ne al bidaatu maa xaalafa kitaaban aw sunnatan aw atharan an ashaabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam biddaa mooy lan mooy lu juyoo ak téere bi yàlla bi wala sunna si yonent bi wala aw jeexeet wu jóge ci saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon boobu euh, tomb moom itam bu mat a bàyyi xel la waaw foofu docteur bala ngay jàll euh, dana laaj ab euh, gën a leeral tuuti ndax rawatina ci jàngkat yi ak gëstukat yi gannaaw xam-xamu usul moom dafa doon xam-xam bu ñu tër boo xam ne day nekk sabab pour mën a dégg nusus si pour mën a dégg texte yi léeg-léeg seen jubluwaay waaye euh, ni nga ko waxee ay tëraliin la yoo xam ne ay doomu aadama ñoo ko xalaat euh, tëral ko euh, di ca sukkandiku nag di mën a dégg nusuus yi waaye tëralin yooyee ni nga ko waxee léeg-léeg am na ca yoo xam ne gannaaw ci mbirum doomu adama lay jóge doomu adama léeg-léeg mbirum am manki manki am na ci yoo xam ne dafay xaw a juuyoo ak texte yi kon loola nag naka la nit ki gëstu di mën a xàmmee texte yooyu mën a yan nattukaay lay mën a xàmmee ne texte bii maanaam xaayida bii régal bii waa usul tëral doonul boo xam ne bu ñu li muy tegtale waree su ko sukkandikoo pour mën koo tatbiq ci kaw nusuus yi hmm. kooku li ci jiitu hmm. mooy fànn gi ngay jàng ci jëmmi boppam hmm. moo xam fànnuk usul loolu leneen nga dégg ko dégg régal bi bu baax a baax euh, xool fan lañ koy appliquer maanaam bu fekkee ne euh, dégg nga ko ci wàllu euh, li ñuy tuddee théorie man koo jëfandikoo ci wàllu pratique mm. xam ci ban texte lañ koy teg mm. danga nga daal di xam ndax règle bi ñu tër ci usul moom dëppoo na ak pratique bi ñu ko jox mm. wala ki tër règle bi dafa doon koo xam ne dafa yor pas-pasam bu mu bëgg a dëgëral mu xool ba gis aw tëraliin mu teg ab règle boo xam ne ci biir pas-pasam la ko jële bëgg seet nag aay yu dëppoog moom def ko misaalam boo xoolee rek yow mi am ak dégg danga daal di xam ndax bii régal dëppoo na ak ak laay yi ñu ko bëgg a jëfandikoo mm-hmm. walla xadis bi ñu ko bëgg a jëfandikoo mm-hmm. waaye su dul loolu moom mm-hmm. euh, xam-xamu usul ci jëmmi boppam euh, ba ca sell xam-xam bu am njariñ la ndax alquran ci boppam ak sunna kooku moyen bu rëy rëy la boo xam ne mënees na ci mën naa dimbali nit ñi bañ gaaw koo dégg rawatina nit ñu mujj ñi nga xam ne euh, seenu dégg arab dafa manqué lool lool. Mm-hmm. Euh, ngir seenu jaxasoo ci ñeneen ñu dul arab mm-hmm. waaye su fekkoon ne dégg ga demee na na mu war a demee. Mm-hmm. Euh, nañ sonne ci xam-xam itam. ci wàllu jëlee ko ci boroomi xam-xam yoo xam ne dañ leen koy jàngal yar leen ca. Euh, kon doon na gën a yomb ndax saxaaba yi ñoom aajo woowu ñu woon xam-xamub usul. kon ni nga xam ne aajo woowu ñu woon xam-xamub naxwu. waaye bi ñu demee ba yëf yi jaxasoo. arab yi ak ajam yi jaxasoo. muy ñey arab ak ñi arab ña la nit ñi yégee ne hmm. aajowoo nañ am ay régal yoo xam ne ñu sukkandiku bu mën a xam hmm. euh, grammaire arabe hmm. ngir mën a dégg alquran ak sunna noonu lañ aajowoo ay régal yoo xam ne moom itam danañ ci mën a déggee alquran ak sunna lu mel ne téere usul bi ñuy wax waraqaat lu xam imaamul Juwayni moo ko defar ci ngirum imaam Shafii kooku téere usul bu am solo la. Hmm. mel ni Marafi Sow nga xam ne ki ko def moom itam ci ngirum imam Malik la ko def. Hmm. téere usul bu am solo la loolu ay téere usul la ñoo xam ne. yu a sukkandiku la yu a sukkandiku la. Hmm. ngir xam ci. mën ci sukkandiku ci a xam eh, waaw waaw waaw. waaw kon xam naa. Euh, mbokk yi ni ngeen ko xamee euh, bunt bi moom bunt bu yaatu la euh, xawaayid yi muy texte yi muy tomb yooyu nga xam ne muy tënk yi ñuy xamee biddaa des na waaye incha allah ñi ngi leen di dig di ñaan borom bi tabaraka wa mu may nu tawfiq nu mën a ko eggale ci beneen jamono amma jamono ji ñu toll nag nga xam ne moom ñi ngi dëlmal shahru ramadaanil mubaarak te itam ponk la ci ponki lislaam yi moom it am ay njàngale yoo xam ne yu mu jagoo la moo tax incha allah dañuy tëj bunt bi fii taxawal ko fii incha allah ba weesu shahru ramadaan ak jàmm incha allah ñi ngi leen di dikk bu nu ko borom bi tabaaraka wa taala mayee docteur dana fi siwaat eggale bunt bi incha allah bu nu ko yàlla mayee ñu dugg ci yeneeni bunt kon nag docteur ñu bàyyi la waa kon ci jeexal gi xanaa rek dellusiwaat di ndokkeel ñi nga xam ne ñooy déglukat yi minbarul islaam mm-hmm. di delloo njukkal itam akuk cant mm-hmm. mbokk yi nga xam ne biñ tàmbalee waxtaan wi ba léegi mm-hmm. eh, ñoom ñi ngi téléphoné ñi ngi gisee di wax di di rafetlu eh, di wane seenu rafet njort eh, di joxe seeni ñaan ñëpp ñi ngi rafetlu seenu continuer ci déglu Minbarul Islam ngir mhm. ak yeneen i dund waxtaan nekk na fii ci rajo bi mhm. te doon yow benn werante ci ne waxtaan yu am njëriñ la ci wàllu diine mhm. yuy leeral sunna la ko jàngale dégg soññ mbokk yi lool ci ñu déglu euh, Minbarul Islam ci ci jamono yi euh, la chaque programme bi muy madrasatu rasul bokk na ci programme yi nga xam ne dañuy jàngale dañuy mm. jàngale sunna ci béréb bii mm-hmm. kon daal ci li ñuy mujjee mm. mooy ñaan suñu borom tabaraka wa taala mm. mu delloo suñu fi ci jàmm mm-hmm. ba ñu ci digg bi nga xam ne moom lañ leen digg ñu mën koo àggale di ñaan weer wi ñuy jublu suñu borom tabaraka wa taala dëgëral nu ci eh, nun ñëpp nu mën koo taxawe mm-hmm. ci wàllu koor ak ci wàllu julli ak ci wàllu ñaan ak ci wàllu ragal yàlla ak ci wàllu wattandiku lépp loo xam ne luy lor sa bakkan wala muy lor bakkanu jullit la hmm. wala ci loxo la wala ci làmmiñ la hmm. yooyu yépp suñ borom tabaraka wa taala musal nu ci ba suñ koor mën a doon koor gu sell nu hmm. jóge ci itam jële ci ak ragal yàlla faw ak taqoog sunna faw te mucc ci lépp loo xam ne dafay nuru bidaa wala dafay nuru luy jàddale nit ki siraatul mustaqim wallahu aalam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa ashaabihi ajmain nag jërëjëf euh, docteur ñu ngi lay sant bu baax a baax ci turu euh, mbooloo mi déglu yépp minbarul islaam ak ci turu mbokki jullit yépp di ñaan borom bi tabaraka wa mu fay la aw yiw ngeen ji li mu fay euh, jullit boo xam ne dox na sonn na ngir jéem a jariñ mbokki jullitam kon nag mbokk yi euh, ñu ngi taxawal waxtaan yi foofu di leen ndokkeel ci jublu si shahru ramadaanil mubaarak di ñaan borom bi tabaraka wa taala defal nu tawfiq nu fekk ko ci jàmm ñuy ndokkeel mboolem mbokk yi nga xam ne ñooy taxawee fii ay waxtaan yi diine di leeral lislaam seen kem kattan di jàngale sunna yonante bi sallallahu alayhi wasallam eh, di ko jàllale ci barab bi ak ci yeneeni barab ñoom ñëpp ñu ngi leen di ndokkeel ñu jiite barab yi itam yombalal eh, jullit ñi ba ñu mën fii jàllale eh, njàngaleem lislaam ci lu dul benn coono boo xam ne bu ñu leen di teg la ñoom itam ñu ngi leen di ñaanal yàlla defal leen tawfiq Euh, techniciens yi ñuy àndal itam euh, ñu ñuy jàppale ci wàllu liggéey bi ñoom itam euh, ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.